bi nga xam ne gars yi ko ignorer ci seen gis-gis parce que euh, ay jalons yu posé la ay actes yu concret la ay mbir yu am solo la mais par rapport ak ñoom ce qu'ils nous vendent euh, tout est tout bon pas à balayer parce que li fi nekk mënuñu ko dindi mais ñoom li ñuy indi leneen lay doon loo xam ne dina wute ak ak ak loolu tey jii nii par rapport ak ça est tamit ce ne pas un investissement perdu ci li xam ne président Sall dafa jàpp horizon la la war mais parce que tout simplement. munoo munoo ñëw. qu'est-ce que ça signifie fekk PSE partenaire di liggéey ak PSE bi muy banque mondiale bi nga. ñoom bëgg ko teg teg fa la nekk FMI di ko liggéey ak ñoom bailleur yi nga xam ne ñëpp PSE nekk lu crédible PSE bi tax tey bi président Macky Sall jógee jël ci moyen réew mi indi li mel ni les marqueurs sociaux yu mel ni ay CMU yu mel ni ay PUDC ak xaalis réew mi. Mhm. bailleurs yi dañ koo fekk si parce que ils ont fui. que lii lu baax la. Mhm. donc ñoom ba yore mosuñ compte bu sécurité familiale mosuñ compte tous ces projets et programmes qu'on appelle les marqueurs sociaux nga ñëw nag bëgg indi lu bees tàq ni leen ñuy départ démarrer ça c'est l'inexpérience. ils sont obligés de faire avec. ils sont obligés. Abla Macky Sall président Macky il y aura pas de rupture bi mu ñëwee. fekk fi Abdoulaye Wade président Abdoulaye Wade lu mu ah. liggéey. Mhm. dafa ñëw teg PSE. non non non il a déroulé un moment. 2014 lañ commencé teg PSE. Mhm. c'est ça la réalité moo tax expérience dafa baax. ak modestie dafa baax manque d'expérience lañu je salue modestie je l'ai dit ce matin si émission RFM matin. Mhm. mooy euh, cher Diba le ministre des finances. oui def passation de service. dafa ne euh, utu ko mel ni Moustapha Ba. yombul il faut être humble et modeste. Mhm. le ministre de l'économie moom ñëw indi fa ay am ay propos yu maladroits moo tax euh, il il a eu pour son grade. la il été à Washington. Dans la vie, il faut cultiver l'humilité, mhm. la simplicité et la modestie. Donc, je dis pourquoi je dis que autant il y a des ministres, genre euh, Birem Diop, ministre des Forces armées, des ministres comme Cher Diba, ministre des Finances, autant il y a des ministres qui sont dans l'arrogance, comme le porte-parole du gouvernement qui a été, qui a fait une communication maladroite uh-huh. et qui a fait dans des menaces, et c'est pas, c'est méconnaître ne pas connaître les députés de Benno Bokk Yaakaar. Ah, léegi euh, aji aji aji Mergane euh, bu weesoo li leen doon reproché ci wàllum euh, droit de l'homme liberté ak yooyu noonu am na lu ngeen jéem loo xam ne tey jii nii à l'heure du bilan jàpp ñu ne am na ci lu satisfaire sénégalais yi mooy le panier de la ménagère le coût de la vie elle est très il est très élevé le coût de la vie la location malgré seen programme 100 000 logements yi bëreegul ñoo xam ne bénéficié wu nañ ci te vous nous l'avez en grande pompe. tey jii nii au à l'heure du bilan est-ce que amu leen benn regret ci ci loolu nga xam ne doon leen ci xaar lu bëree bëri. non aucun regret parce que tout simplement le président Macky Sall lépp lu waroon def def na ko tey nag état c'est la continuité. ñi fi toog tey. 100000 logements yi on aurait espéré que bu ngeen di dem ñu ne ñu 50000 par na. ah oui non si na tey boo demee Kaolack Sing Sing yaakaar naa ne logement yi am na ñu joxe nga dem Bambilor mu am fa nga dem. Euh, même Kébémer wax dëkkaan ne maire bi opposant la sax muy Lamine Thiam am am na fa donc pour vous dire simplement que état lépp lu jéego yu mu woon teg yëpp teg na ko tey euh, boo demee génn bitim réew Sénégal li nekk fierté ci bilan matériel ak ci bilan immatériel man dañ may ñëw naan ma Sénégal wax dëgg yàlla yéenay chefu Afrique mm-hmm. ndax Sénégal lañu gis réew moo xam ne day dem ba naan tey mu takk. mu gën nga gis autorité yi am dépassement am maturité génn ci. Mm-hmm. gis askanu Sénégal kenn xalaatoon ne dinañ xëy dem voté ji la dimanche leen dañu liggéey ñi doon def campagne dénigrement muy presse internationale ñoom ñëpp mm-hmm. pour vous simplement que fii y a eu des réalisations président Macky Sall bilan matériel am na ko am na bilan immatériel te loolu dañ ko wax nangu pour mën a avancer. Mhm. te je pense que ne te gëm naa ne ñi fi nekk nangu nañu ko ndax nangu nañ président Macky Sall gunge leen nangu nañ président Macky Sall conseiller leen nangu nañ président Macky Sall encadré leen moo waxal nag wax dëgg yàlla fi ñu jëm ah yaakaar naa ne war nañ si mën a am euh, optimisme.